nataal benn ca njëlbéen ga yàlla rekk moo nekkoon kenn mënu ko woon gis moom moom rekk benn yàlla yàlla sàkk asamaan ak suuf lépp a jaxasoo asamaan si suuf si ndox si ak leeraay yi noonu yàlla nee leeraay bi nekk leeraay bi nekk mu xaajale leeraay bi ak lëndëm gi mu woowe leeraay ji bëccëg lu woowe lëndëmaay bi guddi yàlla xaajale ndox yi jaww ji ak suuf si mu woowe ndox yi géej mu ne na suuf si sax ay ñax ay gàncax ak i garab yàlla ne na am leeraay ci kaw jaww ji mu xaajale guddi ak bëccëg yàlla bind naaj bi weer bi ak biddéew yi yàlla sàkkat dong moo am